tey daal bisu la ñu ngi sant yàlla baax di julli conante bi di amaan mbégte jàkkaarwaat ak yéen tey nag ni doon jàkkaarloog yéen ak tey dafa am différence parce que li ma wax sànq bi mooy dugg rek tey bis bi dama ci am ñaari paar paar bi njëkk mooy Faty Niang mi nga xam ne tey sunu jigéen la sunu sista yala def mu am doom ci jàmm loolu mbégte la ci man parce que loolu lañ ko doon ñaanal te loolu ngeen doon ñaan bi ci topp mooy doom ji ma am muy góor mu tuddee ko sama ji moom sama doomu ndey nga xam ne maa moom duñu ñaar kenn lan xam nga muy liggéey liggéey bu am solo ci association ànd taxaw ñu wéradi tey daal ndam la mais damay njëkk ci nga xam ne mooy wasin wi nga xam ne moo indi gan gi waxtaan ak moom ak li sànceem bu rafet Fatou Niang maa ngi lay nuyu. maa lay fay. ba yaa ngi ci ci jàmm. ani bébé bi. bébé day mooy ni tëdd. koo ko tuddee. Pape Cheikh Niang. pourquoi Pape Niang. Euh, ndax moom moo ma taxawlu. Euh, ci sujet taxawu euh, ñu wére ji moom ma moom ma dëkk si moom ma dëkk la te ba may dëkk si fekk man maa ngi ëmb te aw ma kenn ku ko mën a tuddee moom itam. tey lan ngay wax am internet yi nga xam ne ñi ngi la doon ñaanal bi gisee nga nekk en état ñu ñeewantu la. ku nekk di jooy daan Fatiña yàlla na ko yàlla may jàmm tey yàlla def na loolu ñaan gi nangu na lan nga leen di wax. aw dara man kay li may wax juste contentement rek ak ay samay remerciement teen remercier nuñ ma taxawulee bu baax tam loolu rek la. mais da ngaa sañse kat moo la solal. Euh, Dija ñoom Xadija Xadi moom ma solal. coiffure bi. moom la itam. moo def lépp. Mhm. te daal kon bégte la bi su daal. waaw. Hmm? dégg ngeen kàddu fàtte Niang damay ñëw nag ci sama jumeau. Pape dafa mel ne tey bisu sant yàlla la bisu mbégte la euh, Faty Niang yàlla defoon na maa yow ko jël si woon fii mu nekkoon moment yu metti moment yu difficile ñun ñëpp doon ñaan tey yàlla nangu na sunu ñaan muccal ko mais li ci dàq mooy gan gi góor la ñu tuddee ko Pape Niang. ndeysaan fa Fadel tey moom bis bi bisu mbégte la waaye bis bi daal ni ma ko waxee rek tey man bi ma koy dem di ko dimbali di ko fekk ci mbedd mi pour mu tuddee ma doom taxul woon Fadel ba mu juddoo ba léegi nit musuma tuddee doom mu njëkk ci moom mu tuddee ma doomam def ko comme sama rak bëggal ko sama bopp te yàlla tax mën naa wax ni journée bi tey maanaam mbégte gi ma am ba ma juddoo ba léegi ba ma juddoo ba léegi musuma am mbegte googu noonu xam nga lu tax mu dem xam na ni su ma waxee dinaa jooy te buggul yàq buggul yàq kanamam man dama ko doon dimbali rek billaahi dama doon won àdduna ni leen nit bonul nit du mala bu kenn ku nekk defee ni ma def malade mental léegi ñu jeex ci mbedd mi nañ jële malaat mental yi ci mbedd mi parce que tey Faty Niang bërki démb dama toog moom di waxtaan ak moom ma ne ko Fati ginnaaw suba la tudd bi li ma lay laaj rek mooy sa doom kan nga bëgg ñu tuddee ko ko mu ne ma kooku noonu surprise la sama doom ki ma koy tuddee du ma ko wax bi ñu demee bay tudd sama rakk bi ñëw wax ak moom mu daal di koy déy ci ndaag nopp bi pour bañ man ma dégg ko mu déy ko ci nopp bi ni ko tuddee naa ko Pape Niang damaa jékki-jékki rek ñu ni ma doom ji Pape Niang lañ ko tuddee mu nekk mbégte tey Fatignan lépp loo xamante ni def naa ko ci moom grâce à ami internet bu dakaar Buzz la ndax bi nga ñëwee fii Fadel jël si ko image su ma ci nit ñi seetaanoon rek kon duma ci mën dara lii fi nekk lépp ci ami internet dakaar Buzz la jóge ñoo ma jàppale ci moom tey wéetoon naa ci wéetoon naa ci te bi ma ci wéetee Dakar Buzz rek ñoom ñoo jóg taxaw ñëw jëlal ma ko image fayeekuwuñ ma laaju ma dërëm ba tey bis bii nii DG am maa ngi lay sant di la gërëm Dakar Buzz yàlla na doon télévision international parce que amal na société bi njariñ Fadel maa ngi sant ki nga xamante ni mooy Adama Jesner moo ma moo ma solal solal Fatigna ni ma pap lii man maa leen ko jox dama bëgg bis bi nga xamante ni bis bu Fatigna bis bu ko yàlla mayee doom nga tudde nga nga sol ko yaag moom man ma amur am amour ni Pape Niang sol na sama yére Fatigna ñi ko xottil ñoo bari képp koo xamante ni rek teg nga ci loxo maa ngi lay sant di la gërëm te Fadel su ma sañoon sama mag bii taxaw mooy sama yaay ñun dañoo teel a ñàkk ndey teel a ñàkk baay ñoom lépp lu nekk ci ñun grace à ñoom lépp lu nekk ci ñun ci mbaax lépp lu nekk ci ñun ci yaru ak taalibe ñoom ñoo ko def ci ñun ginnaaw sunu sang bu tedd bi Mawlana Cheikh Idrissa Fadel daal xam naa ni daal nañ mbégte la daal tey daal mbégte la Fadel <laughs> Fadel mbégte la mbégte la Fadel wallaay mbégte la Fadel man de li ma ci dàq rek mooy ki ñu tuddee doom ji kaay ndax euh, Fatigna li ma ci daaneel mooy il est reconnaissant parce que gis na li nga daj ci moom tey jii mu am kon li lay wan ni Faty xel maa ngi ñëw parce que lii mu xalaat dof du ko xalaat lii mu xalaat ku amul ngor du ko xalaat wolof nag danaa lebal kuy fay moo gën jaay ko amul njëg ndax boo lebalee kuy fay lu bor ba yàgg-yàgg dana la fay lebal nga Faty Niang mais mi ngi lay fay par daat parce que mi ngi xalaat tuddee la doom te loo mës a def ci fay na bor bi mbégte bi tey lan la ginnaaw bu ma la waaye nga nuyoo kontaan fa Fadel maa ngi nuyu ñëpp ba ma sante yàlla julli ci suñu sang-sang Seydina Mouhamed di sant sama jur ya di leen ñaanal yàlla xare leen aljana mhm. Fadel sant naa la Fadel Papa Cheikh ñaan lii muy def jàpp nga ci bu baax jàpp nga ci bu baax a baax man de dama laa bëgg di la bége fu ma toll ndax social bi ngay def di dimbali nit ñi di sàkku ndimbal ci ku ne dama lay seetaan toujours paa nag lii muy def moom baayam la nurool sam papa dafa bari woon yërmande soo duggee suñu kër gi ñi fi dëkkul ñoo ëpp ñi fi dëkk barke yeneen ci bi mu jël Fatigna damay wax naan Fatigna ñoo bokk ndey ak baay ndax papa Cheikh mi ko jël teg ko ci kër gi ñu tabaxal ko mu dëkk ngeen jàpp ci liggéey bi di ko dimbali ba defal ko fii ni mu def ba yàlla muccal ko mu ngénte ko ngénte lu toll nii ah kon ñoo bokk ndey ak baay def nañ ko nag ni ku ñu bokkal ndey ak baay te billaahi dinañ ko def ni ku ñu bokkal ndey ak baay dinañ ko yor dinañ ko téye paa dama koy ñaanal ñang baalo bari na yërmande li muy def ci euh, ànd association bi da koo njëkke ci ay mbokkam bu samay rakk feebar bu samay doom feebaree su ma ko woowee moo ci gën moom ak sóora sama rakk ju góor ji ci kër gi bëgguñu lu ma naqari bëgguñu sama bët xonq maa ngi leen di ñaanal segam maay seen yaay seen taawu yaay ñu déggal ma lu ma leen wax la ñuy def lu ñuy def maay taxaw def lépp lu ma leen di def ko rek la ñuy def lu ma leen waxul duñ ko def maa ngi leen di ñaanal ba ci kanamu yàlla maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm lu ñu mën ren yàlla nañu mën déwén lu ko raw seen waa association bi yëpp maa ngi leen di ñaanal Fadel maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm kontaan naa am na mbégte mu mag a mag barke yeneen bi kontaan naa lu bari jërëjëf jërëjëf mami bokk ci association bi tam yor bébé bi nii mami tey eh, mbégte mi lan la yëg-yëg bi lan la ci lii Faty Niang def Euh, ñuy nuyu ami internetu Dakar Buzz yëpp hmm, di ziar di màggal di kontaan tamit ci yéen ndax comme ni ko Pape waxee rek en tant que président man ma nekk secretaire général bi euh, ba ñu commencé boo leen ñu seetaanoon xëy na problème dina am ba ñu tàmbalee boo leen ñu seetaanoon xëy na tamit ñu yegg si fii mais alhamdulilah seetaanoo leen benn yoon ak détermination bi nga xam ne Pape wane na ko ci. ak association ànd taxawuñu ñu wéradi ñu ñëw jàppale ko jàppee ko ne sunu rakk jàppee ko ne ku ñu bokkal ndax ko bokkal rek nga mën a defal lii euh, ñu def ak moom ay jours yu metti def ak moom ay jours yu neex parce que jigéen bu wann loor rek comme ni ñu amee habitude di ko wax jigéenu wéradi bokk ci ak beneen bi nga xam ne moo nekk ci moom ñuy sant yàlla bi nga xam ne borom bi teg na ci loxo ba tey mbégte mi am ji mu nag jël doom bi tuddee ko sama càmmeñ sama bras droit comme niñ koy waxee moom day wax man maay bras waaye moom mooy sama bras ñun waa asos bi yëpp ñu kontaan ci vraiment ñu kontaan ci trop trop trop euh, kenn seetaanul nag mën naa ne Fatigna euh, nit yi ñoo ko jël bokkoo ko ak ñun. ndax association bi lu ñu taxaw taxaw doomu aadama yi ak ami internet Dakar Buzz tamit taxawee nañ nu ne ndax ci suba gis nga ko nii mu def jongama bay bëgg a dee euh, déjà make-up moo fi jaar dañoo xëy bàyyi seen i yitte bàyyi seen liggéey tëj seen i institut de beauté ñëw ñu ne dañuy defar Fatigna rien que pour bis bi mu sentir ne moom elle une femme comme yeneen jigéen yi nu ñuy amee doom di def xew et ngoon am na ku ko war a defar ku taxaw te nee na moom tamit du ñibbi fii ak defaru Fatignan te dafa ñëw indaale sax yére bu mu ko war a solal xam nga kon ñun lépp ci bis bi xam nga ñun loolu kon dañuy duñu def lu du sant ci yàlla rek ki ko war a defaral ngoon mu ngi tudd Bernadette Euh, institut de beauté la moom tamit euh, xam naa après di ngeen ko jël en nimage ndax ñoom ñëpp ñu ngi ci bâche bi to wax dëgg fa neex yàlla daal kontaan nañ Fatigna teg nañ ci yow teg nga ci Pape comme ni mu ko waxee rek euh, Dakar Buzz moom du ñu jug ci di leen ñaanal ndax du Fatigna kese bari na ay affaire yu ñuy sumb da ngeen ciy ñëw jàpp ci ak ñun kon duñu def lu dul di leen ñaanal yàlla gën a yokk taxawaay bi xam naa suñu amoon. jarul fukk juróom yu mel ne Dakar Buzz rek ak ñii di seetaan Dakar Buzz kon Sénégal peut-être dina beneen image. jërëjëf am internet yi ba tey lii ci teraanga yi rek sama maman benn maman bu tudd maman Fatick moo ko jox rek nee na Fatick buy ñàkki mën koo jëlaale sol ko rek lay wan ni boo nekkee lu baax nekk ci rek yàlla lay fay lii sa benn yaay moo la ko jox bu tudd maman moo la ko jox léegi la yëg dañ lay tuddal tey rek mu teralee la lii. pour booy ñàkk bébé bi rek bébé pap nga sol ko la ci loo koy wax ñu ngi lay seetaan maman Fadiga. merci ma maman Fadiga tissu bi ñaw bi rafet na torop merci. merci beaucoup kon daal nii nga sàjjee ko ñu def xaar ba ci kanam nga support ñu ko waaw. Ah. Muhammad Rasulullah yow laay alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi dellu di santaat yàlla sunu borom mi nga xamante ni ci moom lañ saxoo di ko sant ndax lii nga xamante ni moom la ñu yàlla defal ku ko yàlla defal da ngaa war a sant yàlla nga woote nit ñi ñëw wuyu si la lépp lu ñu jàppoon ñu bàyyi ko ñëw ànd ak yow taxawu la ci sa bis jàppale la ci sa bis ba bis bi lépp rafet fi mu toll nii jaami yàlla yëpp ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ni nga xamante ni noonu lañ gisee seen rakk muy ki nga xamante ni tey dafa neex a bëgg di sama rakk di seen doom di seen lépp muy Fatignan tey nag sama doom baay ba di Fadel Niang xam naa ni maa ko fi toogal tey ginnaaw bi nga xamante ni yëkkati na kàddu yu am solo balaa may ñëw ci ñi ma war a sant wala ma leen di gërëm damay ñëw ci sama rakk mi nga xamante ni moo waral bis bi ma laaj ko tey lan moo ko gën a neex ci bis bi Fatignan tey lu la gën a neex ci bis bi. tey ah bis bi moom xew bi neex na lépp neex na. sa première doom bi nga amoon xewoon nga comme ni sama premier doom waaw xewoon nañ de. xewoon ngeen comme nii. waaw bo bii ak boobu ban moo gën a neex. ñaar yëpp a neex. daa mel ni bii a gën a fàcc de. Ah, ñaar yëpp a neex. ñaar yëpp a neex. Fatigna lan ngay wax ci ñi nga xamante ni tey ñoo bàyyi seen yitte ñëw solo la ki la def nii ba nga rafet nu mu tudd. Khady. Khadija waaw. Fatigna tey nga yëkkati sa doom ak doom ni mu seere ci xool nga munoon ko tuddee koo xamante ni borom alal la nga mënoon ko tuddee président nga mënoon ko tuddee ku la neex waaye tey nga yëkkati sa turu doom tuddee ma ko lan moo tax nga tuddee ma sa doom. dara ni nga baaxee moo tax ma tuddee ak sama doom ak sa yërmande looloo tax maa ngi ciy remercier bu baax itam fi amu benn problème tout ça amoo problème luñ la jox ñu ne pour nga jox ma tax koy jox tout ça looloo tax Faty Niang tey jii ndax xalaat nga ci sa kanam un jour viendra da ngay am borom kër waaye est-ce que xam nga ni buñ la boo amee ku bëgg bu la takkee tamit kër gi ku góor ki mooy sëy de yow doo dem de. Ah. lu waral wax ju rafetoo te ñaawul. lu waral loolu. yow dañ laa bëgg te fii ngay des sama turandoo nga yor. Ah. góor gula bëgg ba takk la fii lay sëy si. dëgg la. d'accord ci kër gi. waaw <laughs> wala bëgg mu yóbbu la bitim réew. yéen ñiy seetaan daal li ma bëgg mooy sama rak bëgguma mu dugg ci koo xamante ne da koy néewal doole wala mu koy tumurankeloo bëgg naa ku ko tane koo xamante ni suturaal na ko te yërëm na ko te moom ci boppam mu bëggal ko boppam kooku lañ ko fas yéenee may moom nag moom mooy choisir képp koo xamante ni bëgg nga ko incha allah danañ la ko may yàlla rek tax ngir nga am yërmande ci moom Faty Niang lan ngay wax waa kër gi Sora ñoom Oumy Ndiaye ñoom Assa ñoom Maymuna ñoom Soka ñoom ñëpp ñi lay taxaw lan ngay wax ci ñoom. dara contentement rek ñoom it amuñu benn problème ñu ngi ak man fii ñu téy ma comme seen rak ñoom amuñu problème franchement ñoo baax ñoo mën a accueillir nit te dañoo nekkul ay nit yi gore ji looloo tax. lan ngay wax waa Dakar Buzz. ñoom ñi nga xamante ni première vidéo ba ñoo ñëwoon jël si la tey ñu ñëwaat ànd ak yow ci bis bi ba lépp rafet lan ngay wax waa Dakar Buzz. waa Dakar Buzz maa ngi defaat coucou rek di leen man maa ngi fii euh, maa ngi fii daal ak ñoom franchement. kon daal euh, Fatigna ak Dakar Buzz dara du ko tàq dara du leen tàqale. déedéet déedéet. loolu xaritoogu am solo la tey bis bi dafa am solo lool ñuy sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Fatigna ci bis bi nii Fatigna lan ngay wax ci ki nga xamante ni moom mooy Amélia Amélia ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal ñëw ah lan ngay wax si ñoom. aw ma daal li may wax maa ngi remercier ta Élise remercier Saabu di ko remercier moom itam ci nu may seet si we tout ça maa leen di remercier franchement vu que seet si nañ ma. lan ngay wax ci mami mami mi nga xamante ni mi ngi ci bitim réew wéetu ma ci. mu lay jàppale léeg-léeg mu may yónnee xaalis ba ci ngénte li nii yónnee na ma xaalis ni ma dama bëgg Pape Niang bëgguma Faty Niang am dara lu ko naqari lan ngay wax ci mami. Euh, mami maa ngi koy remercier ci nu mu ma yónnee xaalis parce que maa maa ko ñaanoon expliquer ko maa ngi koy remercier lu muy def dafa rafet itam. parce que nit boo amee nit boo xam te ne nekku euh, ku nekkoon nekku fi bu la fàttalee ko loolu lu bëri la. man gaa awma doole pour di kow chaque jour ndax crédit yi dafa cher. mais li ma yónnee maa ngi koy remercier di ñaan wërgu yaram doomam yi yàlla ko yàlla uuf ak njabootam yàlla lu muy def yàlla na ko yàlla xeeb mu gën a feccali ay poche am bébé Pape Niang bu màggee lan nga bëgg mu doon Pape Niang moo tax nga bëgg mu doon docteur ah docteur daa am xaalis mbirum intelligence tout ça te liggéey bu baax la chaque fois la médecine foo dem dangay am liggéey boo amee diplôme yàlla jox ko intelligence boobu muy jàng doon docteur di liggéey ci ay hôpital tout ça wala acteur de cinéma waaw. Fatigna kontaan nañ tey xam naa ne programme bi dañ koy continuer ci ñaareelu xaaj bi muy li nga xamante ne mooy cant yi delloo yàlla njukkal moom mi nga xamante ni moo ñu wommatal Fatigna ba Fatigna ñëw ànd ak ñun nekk ci biir kër gi. sa dara manqué wul kër gi lan moo la fi manqué Fatigna. dara. sa lépp mat na. amoo fi dara loola naqari. fii déedéet fii daal dara naqariwu ma gum de. dara naqariwu la fi kontaan nga ci ñëpp. waaw. ayca Fatigna kontaan na ci ñëpp dañuy woo ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo taxawu sama rakk ji euh, wax dëgg yàlla ma bëgg nag képp koo xamante ni yaa ngi defarati sa bopp wala nga am xew bëgg naa nga jokkoog ñii ndax ñoom ñoo ñëw def social ñëw ci Fatigna def defaral ko bàyyi seen yitte yëpp jóge fu sori paas seen taxi yamuñu ci ñu solal ko ay yëre yu rafet indil ko def ko te yàlla rek tax kon yàlla mi tax ñu def loolu yàlla na leen yàlla fay maa ngi bëgg nag képp kuy jàkkaarloog Dakar Buzz mu jokkook soxna yu baax yi su ko defee ñoom dinañ présenté wu wax ñi ñu doon wax fan lañ nekk ba ëllëg képp kuy defarooti xam ngeen niñ def sama rakk nii sama xol sedd na ci maa ngi sant bu baax sama rakk yi sama mag yi sama mbokk yi jóge fu ne sant membre association bi ñu jóge fu ne soxna say mbeng jóge ba Louga moo ci gën a sori ñoom kana sëy jóge ba diwaanu bitim réew ñëpp ñëw ci bisub euh, sama rakk ji kon maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla fay continuer leen seen abonnement ci seen bu am solo bi nga xamante ni mooy Dakar Buzz International maa ngi gërëm bu baax DG am DG am yal na la yàlla fay lépp loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal Dakar Buzz 2021 gii ñu nekk mille vingt deux yàlla na doon télé international ñu ngi la koy ñaanal yàlla na la matériel yi yomb sa journaliste yi baax nañ yaru nañ te fu ñu dem mën nañ faa nekk kon daal mention spéciale a ki nga xamante ne moom mooy DG am ak ki nga xamante ne mooy sama doom baay ba Fadel Niang ak képp ku fay caméraman wala ngay monteur. soxna si ak lan moo sabab sa teewaay fii ak li nga defal Fatigna bu tax nga def. salaamaaleykum maa ngi leen di wax Dakar Buzz di leen nuyu yéen ñëpp man la Dija Makeup waaw. lan moo waral ñëw ah, jàpp ci liggéey bi rek. bokkaal ci association bi ndax lii lu baax la waaw. Euh, ngeen amul benn problème. bi mu ñëwee daa tànn maquillage am tànn coiffure am ne ma defal ma bii déjà. waaw ah, ah. comme ni nga ko bëggee. Ah. gis nañ ci loolu mais da ngeen a yëkkati seen xaalis. Mhm. jënd ci ay yëre yu rafet ba lépp li patiñaa sol bay ngeen ci waaru am solo. loolu moo mhm. tax ngeen loolu. du dara moom. liñ ko liñ ko defar rek suñu bopp lañ ko defal. waaw. léegi euh, bëgg nañoo xam ban message ngay lancé àdduna ngir ñu xam ñi nga xamante ne dañoo am feebaru xel ndax dañ leen war a boddi wala dañ leen war a sànni. waa képp ku am malade mental sa kër nga jël ko jox utal ko liggéey boole ko ci nit ñi ndax ñu nag ñoom ñoo yem. waa jàpp Pikine après rue du salon di ja make-up Fatigna. lan waa Bakar 2 maa ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam euh, Fatigna bisam bii luñ ko def rek suñu bopp lañ ko defal ndax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yàlla moo ko sàkk moo ñu sàkk ñun ñëpp ñoo bokk fu ñu jóge ñoo bokk fu ñu dellu bisam bii suñu mbégte la luñ def suñu bopp lañ ko defal moom lu mu def rek ñun suñu bopp lañ ko defal ñoo bokk lépp. di la gën a sant tamit waaw di la gën a sant yow tamit pap ndax lii ñu def ni yëpp si yow lañ ko gisee ndax euh, affection bu demee ba am rek c'est à cause de vous yow yaa ñuy wan di ñu teetee naka la ñuy liggéeyalee liggéey bi liggéey jaamu yàlla metti na waaye tamit yomb na lépp tam liggéey bi daal jaamu yàlla la ñu la ciy sant nga toog ba fekk lépp ak lépp loo ci bëgg suñu borom defal la ko ñu lay sant bu baax di la gërëm jaajëf. man moom aw seen fay. waaw maa leen di remercier ni ngeen ma defay ay coiffure bi rafet na maquillage bi itam ba pare baax rafet taaru <laughs> merci vraiment. waa salaamaaleykum waa Dakar Buzz ñu ngi mbokk internet ñëpp ñuy seetaan man nag maa ngi tudd Bernadette yore structure bu ñuy wax Benouche Beauty Makeup di salon mobile voilà. waa Fatigna boo xoolee Pape. man Faty Niang ba moo koy suivre yàgg na depuis premier jour bi ko Dakar Buzz jële ba tey maa ngi topp Faty di ko xool kon sama moroomu jigéen di xam ne di ko dal nii yàlla mun na ko teg ku ne peut-être sama loxo peut-être awma lu ma ko jàppale mais yàlla may na ma xam-xam mooy sama liggéey ma ne noonu laay ñëw participer ci bés bi ngir jàppale Faty Niang waaw Fatigna dafa neex a defar parce que boo waxee moom la dala naan waaw baax na boo ko laajee mu na la waaw baax na nga xool li rafet ak moom li mu bëgg rek nga daari ko koy defaral macha allah moom moom naqarewul waxal naqarewul defaral te moo ngi nii yaañ ba bëgg a dee macha allah. waaw pour man du képp ku feebar dañ la war a sànni ci mbedd bi. soo amee mbokk bu feebar boo ko mënul toppatoo xoolal ka nga xam ne boo ko joxee dina ko mën a toppatoo nga te ko ci loxo yu wóor parce que bu yàlla defee jàmm boo mënee jëlaat sa mbokk nga jël ko mais pour man kenn du am sa mbokk mu amee feebar rek bu mu mënti doon wala nu mu mënti mel nga du ko sànni ci mbedd bi ndax mbedd du kër bu doon loolu kon kenn du tabax kër voilà. waaw man sama salon mi ngi nekk Grand Mbao cité Ndeye Marie Wilane moom 90 ku ma bëgg a jot da ngay woote 77 256 09 59. Papa Cheikh ubbil valise bi Astou Sène a yónnee ci yow sa rakk sa xarit nee na tur bi rëy na ci moom nee na tur bi saf na ko nee na liir bi mooy bàjjanam nee na moo la defal nii ci turandoo bi ñang bala yow ñun kenn mënu laa fay biram xarek biram naar yow mënuñu laa fay saa jaala waali mbaam yàlla na sa jàmm yàgg. yàlla na la yàlla defal jàmm defal la sutura ñang baalo lii nga mën barke Seydina Mohamed kenn mënu ko ñang baalo sax xol yow rek yaa ko am kon yàlla na la yàlla fay dañuy gàttal kàddu yi ndax yéen Dakar Buzz mënuñu leen a fay jërë ngeen jëf Fadel kontaan nañ ci yow merci beaucoup jaajëf. Euh, merci euh, Astou Sène au Canada maa lay remercier merci.